wasma'u wa ati'u wa anfiqu xayran li anfusikum wa man yuuqa suxa nafsihi fa ulaika humul muflihun mbokk bi sunu borom subhaanahu mu ngi wax ne ragal leen yàlla dëggi dëggi ragal ko fattaqullaha mastataatum ragal leen yàlla seen kemtalaayal kattan lu ngeen mën ci taxaw ragal yàlla def leen ko wasmau ngeen dégg wa atiu ngeen topp nit bu ragalee yàlla ba pare dafa war a dégg bu déggee dafa war a topp waaye yàlla mu ne wa anfiqu xayran li anfusikum joxe leen dépassé leen seen alal ci lu baax ngeen defal ko seen bopp wa anfiqu xayran li anfusikum defal leen seen bopp lu baax mooy jël leen seen alal def ci yoonu yàlla saraxe leen jokk leen mbokk dimbali leen faqiir dimbali leen miskiin seen kemtalaayal kàttan tabax leen ay jàkk defar leen ay daara gas leen ay teen tabax leen ay hôpitaux lépp lu baax ab jullit su ko yàlla dinkee dara dafa war a jël alalam def ko ci yoonu yàlla sarax nag ay anam yu bare bari la ay ngëneel yu bari nekk ci ñu tànnal leen ci bunt bi ay tomb yu tolloog fukki tomb ak juróom ci ngëneelu saraxe wa ca jiitu ca ngëneel yooyu nekk ci sarax sunu boroom subhaanahu wa taala nee na as sadaqatu tutfiu ghadaballah azza wa sarax day fay meru yàlla léeg yàlla mere nit yàlla mere kër yàlla mere ab dëkk lay tax mer boobu yàlla teggi ko ci seen kaw mooy sarax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na inna sadaqata sirr tutfi u ghadaba rabb tabaraka wa taala sarax ci sekkere jël sa alal dugal ko ci yoonu yàlla ci sekkere kenn yëgut lu dul yaa kan ko jox ak borom bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na lool day day fay meram yàlla allahu akbar ndeke yàlla jalla jalaaluhu azza kamaaluhu buur la waaye day mer laa ilaha illa allah laa ilaha bu ñu yàlla mere yàlla bu ñu yàlla mere ndeke yàlla buur la waaye day mer lan mooy dindi mer mi ci moom lan mooy tax meram bi deñ mooy yow jaam bi mu mere nga jël sa alal delloo ko ko ci moom yàlla tabaraka wa mooy nga saraxe allahu akbar mbokki jullit yi ndeke sarax dafay dindi meram yàlla su sala sa baay mere nga am jafe-jafe su la sa ndey meree nga am jafe-jafe say doom buñ la meree nga nekk ci xat sa patron bu la meree nga nekk ci xat-xat sa soxna bu la meree nga nekk ci xat-xat waaw kon buur bi jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu bu la meree nu mu war a mel su la yàlla meree nan la war a mel jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu bokk jullit yi meru yàlla subhaanahu wa xejul ci jaam jàngeen ci faatiha yàlla ne gayril maxduubi alayhim wala daalliin yahud yàlla da na a mere moo tax gis nga nit ñi alko merem yàlla moo xejul ci jaam jalla jalaaluhu wa azza kamaalu moo tax jaam bi lépp lu mu mën a def balaa muy génn àdduna mu dajeeg yàlla tabaaraka wa taala teggi merci moom jaam bi bu ko xamee na ko def na ci sóobu lépp loo xam ne su ko jaam defee yàlla mere ko mu war a sori loolu yàlla nee na wa man yakfur bil imaani man yakfur billahi min baadi imaanihi illa man kuriha wa qalbuhu mutmainna bil iman walakin man charraha bil bi nee na ko def ak kéeféer génne lislaam borom bi nee na ñoo ñu de yàlla mere na leen jalla jalaaluhu wa azza moo tax doomu aadama jullit lépp loo mar a def ba yàlla tabaraka wa du la mere defal loolu su fekkee yaa ngi bëgg a ut ak nit ñi jàmm ut ak dëkkandoo yi jàmm ut ak mbokk yi jàmm te borom bi tabaraka wa mi la bind utoog moom jàmm loolu musiba la kon ndeke mbokk yi sunu borom subhaanahu wa taala indil nañu yoon yoo xamante ne buñ ci sooboo meru yàlla duñu laal te mooy lan mooy nuy saraxe lu nu am nunu tuuti tuuti tuuti yàlla nee na wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah lépp lu ngeen mën a def lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti ngeen jébbal ko yàlla tabaraka wa taala borom bi subhaanahu wa taala nee na di ngeen ko fekk ci moom kon doomu ndeyi mbokk yi ubbil nañ sunu borom subhanahu wa benn sànce ubbil nañ yàlla sànce ubbil lislaam sànce ubbil sayduna muhammad benn sànce ubbil daara alquran sànce ubbil kërug lislaam sànce yéen ñëpp ñu leen ci woo bu kenn xepp lu mu yor saaku sima pont lu mu mën a doon fer béton lépp lu doomu aadama am bokk ko dugal ci liggéey bi incha allah su jokkoo ñun su jokkoo mbokk yi nga xam ne seen numéro ñu ngi ci vidéo yi incha allah loolu dana dugg ci liggéey bi ñi leen di yëgal ne barab ba def nañ fa ndox semaine bi commencé nañ jënd matériel yi bëgg nañoo tàmbali mool yi ndax am na lenn lu ñu dajale loo xam ne mbokk yi ñoo ko dajale ci ay toni ciment ci lu ñu jëndee matériel yi loo xam ne war nañ cee mën a commencé ay mool bu soobee sunu borom subhaanahu wa taala diggante mercredi ak jeudi di ngeen gis foofu ci ay vidéo ne liggéey bi tàmbali nañ ko ñu leen ci woo kenn ku nekk ci yéen lépp lu mu am lépp lu mu mën koo bàyyi fàtte ko ngir yàlla incha allah ñoo ngi koy woo tàllal ko loxo incha allah bismillah di leen ñaanal yàlla tabaraka wa taala tawfiq adduna ak alaxira yàlla sàmm leen sàmm seen njaboot barkel seen am am asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu